loolu moo tax ma bëgg a glisser tuuti wax ak sunu xale yi tey département de Kër Massar amul benn département bu muy ñee ci Sénégal am ngeen ay doom yoo xam ni màgg nañu xam nañu lu baax xam nañu lu bon tey département de Kër Massar représenté par son conseil départemental li muy manqué manqué ay moyen gisaguma ci at mii ñu nekk benn collectivité territoriale moo xam département la moo xam ville la xam commune la bu organiser lu mel pour primer ses meilleurs élèves donc loolu xale yi laa koy waxal ngeen xam ni am ko doon wax ni si on a les moyens on organise si on n'a pas les moyens on s'organise ñi nga xamante ni ñoo leen di jiite ci département de Kër Massar bëri wuñ ay moyens mais ils sont en train de s'organiser et loolu buñ ko day def pour que yéen la pour ngeen bañ am complexe département de Kër Massar fii la bar Gueye fi fii la Babacar Gueye deuk fi la Amadou Hott deuk fi la Assom Diat deuk am ngeen ay dom yo amatuñu complexe devant qui que ce soit quand il s'est agi d'être ministre de la République sen dom ji taxaw mo nekkoon le plus jeune ministre de l'Afrique de l'Ouest en 2011 quand il s'est agi d'être ministre de la République Assom Diat nekk na fi ministre de la République Amadou Hott nekk na fi ministre de la République Fatou Tambedou nek na fi ministre de la République donc yéen lañu ñu yaakaar xale yi nga xamanteni ni lañuy primer aujourd'hui pour que demain ngeen mën briser ces murs de glace yi nga xamanteni ni ñoo devant vous li xaar ci yéen moy suba wara ñi ñi primer ak ñi ñu war a primer déwén ak yeneeni dewon ak ngeen a ay président de la République fii ci Sénégal parce que c'est possible maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm